daal di Moustapha waxal li nga bëgg na loo bëgg mais mu ne ko ma wax li ma bëgg daal di sëñ Fallou dimbali ma ngir yàlla nga waxal ma li ma bëgg ndax xam naa ni boo ma waxalee mooy gën a tonowu ci man ma waxal sama bopp waxal ma li ma bëgg ñu denge mu ni Fallou waxal li nga mu ni mu ni sëñ waxal ma li ma bëgg naa ni lu ma lu ma bëggal sama bopp rek la ma bëggal ko gën foofu kon waxal ma li ma bëgg sëñ bi di leen gàtt kenn ku nekk mu bu bu bu la ne gerte gaaw wax li nga li nga bëgg ma defal la ko nga daal ni nga mbàkket na ma diw mi waxal ndax leer na ma ni li ma bëggal bëggalu ma ko sama bopp leer na ma ni li ma bëggal moo gën fopp ci man te moo ëpp moo gën a yaatu lu ma doon xalaat di ko bëggal sama bopp li ma bëggal ko gën kon dama mën a waxal sama bopp dara ba sëñ bi téye leen fa lu yàgg lool kenn ku ci nekk rek comme ci ni waxal li nga bëgg rek nga ne sa morom yaa may waxal nga ne kacades yaa may waxal sëñ Tuubaa leen a yeewi ni leen waaw kay kenn ku nekk ci man maa la gën xam li nga yelloo ak di yow lii rek laa bëggoon loolu bokk na ci ñoom ñaari taawam yi nga xam ne ñoo jëkk a màgg ci waa këram ñoo ko fi jëkk a nekkal ci nu ñu déggoo woon ak nu ñu mànkoo woon ak noo xamante ni bii Cheikh Mouhamadou Moustapha bëggee woon na ko ay rakkam ak noo xamante ni bii Cheikh Mouhamadou Fadal nangu woon na ko topp sëñ Mouhamadou Moustapha di jëwriñam di muritam di taalibeem loolu bokk na ci mu di saati sëriñ Touba sëñ Fallou yi ci gën a jandiku am na bis boo xam ni moom sëriñ Fallou sëñ bi woo na ko euh, euh, bind na ab kaamil kaamil benn mu tax benn kaamil bu bu rafet bind moo xam ne mii mbind mu yàgg yàgg la dina mu dina ko ci diir bu yàgg yàgg di ko teelu rek di ko bind na mu ko bëggee benn kaamil ba sottee mu mu dessin ko def ci ay frise def ca na mu gën a rafetee liggéey jaafara ja ba yegg mu boole lépp dikk ci sëñ Tuubaa ne ko addiyee sëñ Tuubaa addiyee addiyee sëñ Tuubaa sa addiyaa ko sëñ Tuubaa ubbi kaamil bi yéemu ci lool ci mbind mi ni mu rafete ak mbind mi ni mu selle dal di ko ni fallu mu ne ko Mbàkke mu ne ko jërëjëf nga ni ko def mu ne ko bii sa addiyaa Mbàkke mu ne ko ak sa daal ko ne waaye dama fee amul yóbbante bu jëm ci ceeb mu ne ko ku la ko yóbbante mu ne ko yàlla sa borom mais mu ne ko lu mu wax sëñ Fall ne ko lu mu wax mu ne ko yàlla nee na gis na kaamil bi mbind neex na ko nee na nga bindal ko ci bu na nga bindal ko bu ni mel nga bindal ko bu ni mel képp te mu bañ a waroog moom na ndax danga ko mën sëñ Fall ni ko waaw nee danaa ko mën danaa ko a bind bu mel nii képp waaye damay fay de ne ko bind bind yi rek moom yow laa ko mën a defal ne ko moom nag damay fay suñu suñu waxaalee ba jubóodee su ma fayee lu ma jaral ma bindal ko mu ne ko ah, baax la ko waxal ne suñ mu ko woo ko ak ah, sa fàllu kon sa borom nee na jubóo na ci nee na nga nga bindal ko rek nee na nga bindal ko loo ko loo ko loo ko fayu ma fay la en tout moo ko wax de te moom de mos sa juróom mukk ay waxam mos sa wax mukk mukk ba dëxal ba yegsi mu mu mu jëf mu wax mu ne ko mu ne ko waaw Fallou loo ko bëgg a jaayee kaamil bi sax loo ko bëgg a jaayee moom sëriñ moom sëriñ Fallou xam na ni kenn ki lay waxal waaw waaye mi ngi bëgg rek moom dana am sew sew boo xam ne dana ci jaar ba dana am li bëgg lépp mu ne ko ana loo ko bëgg a jaayee kaamil bi mu ne ko nee ko damaa bëgg daal su ma ko bindalee ba mu yegg mu xool ko ba mu mel ni ko neex ginnaaw moom moom lépp te moom lu mën a doon lu tuuti la ci moom te lépp lu mën a doon mën na ko te du ko wàññi dara lu ma ko wax rek mu defal ko mu lu ma ko ne moom laa koy jaay rek mu jënde ko su ko xoolee nag te neexu ko mu xàcc waaye su fekkee bind naa ko ba mu yegg te mu xool ko mu mel na mu bëgg lu ma ko wax rek moom mi nga xam lépp moo ko moom te mën na maa defal sax lu kawee sama njor man ni ci xalaat xol bu tuuti laa yor ndax mbindeef laa moom xam naa ni du ma ko bett mukk ndax lu ma ko wax lu mu rëy rëy am na ko te mën na ko su fekkee mën na lool daal ma bindal nee sëñ Tuubaa ne ko bismillah tàmbali nee na juboo nañ sëñ bu mel ni bu jëkk ba def ca lam defoon ca bu jëkk bépp dikk wan ko sëriñ Tuubaa ne ko wanal ma ko ko nee ko ndax ndax dëppoo na sañ bi xool ubbi kaamil bi xool xool xool ne ko ak saa fàllu bëgg na ko mu ne ko te wanal ma ko ko rek mu ne ko maa ko ne bëgg na ko mu ne ko ah waaw kon kon loo koy jaayee loo ko koy jaayee mu ne ko nee ko yow mii toog ku la xam bu mu dem sawar ku la xam rek bu mu dem sawar ne sëñ Tuubaa daal dara gi muy ab di daan hmm, fàllu loolu ëpp na mu ne ko li muy ëpp ëpp jar nga ko te moom mën na ko yow jar nga ku la xam dootu la te moom yàlla mën na ku la xam dootu la loolu firnde la ci nii sëriñ Fallou ak muriteem ak bëggam borom Touba mënee su koo takk mukk ne bi mu ko waxee loolu Serigne Touba daan ni dina ba ci ak ni ko waaw kay kon juboo na ci kon sa borom juboo na ci juboo na ci kon ku ma xamati dootu la Serigne Fallou nu mu nekkee murit lool ak nu mu bare ay gaar ay tolof tolof ndax ku ne xam na ni am na benn bis boo xam ne bi bisum ayib la ci xalifatu Cheikh Mouhamadou Moustapha wax nañu sëñ Fallou euh, bisub eet bisub tëbaski xëy na julli ji ba noppi ci jullikaay ba wàññi ko dugg këram ni cell amut am am arfaat te booba ndekete xéewali adduna yeeg àllaaxira yeeg magasin yeeg koppar foor yeeg lépp moo leen nar a nee na ba nga xamante ni bii ñàkkul ay bindeef yu nemmeeku ni sëñ Fallou mi tëbaskiwul ñu dem wax ko sëñ Modou Moustapha ñu ko ah, Mbàkke mel na ni sëñ Fallou day këram daanaka dara deewu sëñ Modou Moustapha moo jógal boppam cib tànkam dem seeti sëñ Fall ba mu demee xool gisul fenn fuy nuru fu ñu tëral ab gàtt defar ko mu laaj ko ko mu ne ko waaw noonu la deme waaw tey jii de moom amuñu ak sëñ Modou Moustapha daal di sëñ daal di métit lu lool lool métit lu ko lool ni ko daal bu fekkente ni mas nga maa def lu ma naqari tey jii ndax yow war ngaa xam ni su fekkonte ni wenn mennu tabaski képp képp laa am te mu leer ma ne yow amum tabaski billaahi giñ naa ko ci daraje sëñ Tuubaa minu boole maa yow kon danaa la ko jox kon soo jëkkee ba ñàkk tabaski man ma ma nekk te mën a am mbub mu jarum tabaski mbaa nit bu jarum tabaski tey nga ma mas a def lu ma naqari mu ne ko Moustapha yëgul foofu waaye bu mu la naqari may seet ko ci sëñ Tuubaa muurum koor képp ko gën a yomb tabaski te musu am na ay koor yu bari yoo xam ni jëlewu ko murum koor képp sëriñ bi ñàkk na ko loo foofu rek laa xool moo tax mu ëpp ci man tooy doon loo xam ne lii su ma ko ñàkkee damaa war a ñëw ndax su ma la ko waxoon nga jël sama tabaski jox ma te demeewu ni maa ngi xool rek ba sëñ Tuubaa jullee julli korite ba noppi amul kenn ku ko nangul te amul muurum koor foofee rek laa xool bu ma ñàkkee tabaski bi moo def ma tooy xam nga sëñ Fall wax na ni moom fekk na farata yàlla yi yëpp di juróom nee na man yokk naa ko te bi ma ci yokk ku ko ci boolewul loo liggéey ci juróom ya yàq naa ko nee na fekk naa farata di gëm yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangoo julli waxtu yi juróom nangoo woor weeru koor nangoo sa asaka nangoo aj màkka soo ko amee nee loolu mooy faratay jullit nee na yokk naa ko man fallu boole naa ci képp kuy mu kàllaf dem ba xam ne sa loxo ndijoor ak sa loxo càmmoñ dem bañ togg la jëf te sa rango ñi ma sa sotti ko ngir bëgg sëñ Tuubaa loo liggéey fi yàq naa ko man sam juróom yee dootoo ci am dara dara dara ñu ne ko bind ko mu ne safku du moohi li xubbil qadimi fardan arabu am na li mundili lana wadaayi wa munsidin cafaayi waddawaayi حمدا لمنشئ لنا وداعي ومنشئ الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليطلب عن البلاء ثم على من سمات ثمر يبرى بالعبد وفات بالقرر محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم sëriñ bi ku ne xam na ni jamono sëñ Modou Moustapha moom sëñ Fallou ni mu doone woon rakkam na doone woon jëwriñam na doone woon jaraafam daanaka am yu bari yoo xam ni sëñ Mourou Moustapha sëñ Fallou Touré diisoon ak di ko wax daana ko daana wax sax moom sëñ Mourou Moustapha ni ñi ma bokkal sëñ Tuubaa du ñu samay rek samay doomi sëriñ lañu moo tax ñoom la daa ñaanloo ñoom la daa doguloo ñoom la daa bégal ngir bëgg a am mbégum sëriñ Tuubaa 1933 bi nga xamante ni bi sëriñ Mourou Moustapha mi ngi sanc Taïf dafa dikk ci sëñ Fallou wax ko ko ni ko la yóbboon Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Taïf jot na ma tàmbali naa jumaa ji bëgg tool yoo xam ni dama cay bay addiya di ko indi di ko liggéey di ko liggéey di ci liggéey jumaa ji am na gis naa barab boo xam ne bii rafetlu naa ko bëgg koo ci tool bëgg faa sañ ci ay daara ci liggéey addiya di ko indi ci jumaay jumaay sëñ Tuubaa seen baay ji ma bëgg nag mu ànd ba fa barab ba yow sax ma faadal nga ñaanal ma ci barab ba te tuddal ma ko sëñ Fallou ànd ak sëñ Modou Moustapha ba ñu yegg foofee di taayib tey sëñ Fallu tudde barab ba taif daldi way bayit yi ni yaa qaifan yaxsha nawaiba dahrihi lus bil xalifati almustafa ci taifi nga xam ni kii ci jamonoy magam jooju ko coowul lenn ak moom wutul lenn boppam dafa foog bindeef yëpp joxoñ leen sëñ Moodu Moustapha ndax dafa wax ni yaa qaifan yaxsha nawaiba dahrihi yow aji tiit yi nga xam ni yaa ngi regal nëx nëxi ndaxte booba day ku zamaan la ñu ne naqari jamono gaar na bindeef yi ndax yett dugg na ci réew mi muy sedd bi ak xiif bi ak peste bi ak rafle bi loolu jàpp na nit ñi ak xol yi nga xam ne sëñ baa ngi sancoon te gisatuñ ko seen i bët wéet ak lu seen i xol wéet loolu lépp gaar jamono ak sart yi nga xam ne tegu na ci yoon wi muy raay bi ak jumaa ji ak noonu yoon wi nga xam daal dinañu jëmb defee bu sëñ Tuubaa noppee nekk loolu day daal di fay muy colonie muy tubaab bi ak ñooñu yëpp dëgmal sëñ Moodu Moustapha waaye ca fit wa ca teega ndax alxilmu wal xanaatu xaslataani laa yantijuhuma ila uluwil himmati sëñ Modou Moustapha sëñ Tuubaa ko wóolu loon boppam wóolu goo xam ne gii bi mu fi daataa bàyyi koo nee na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gi yéefari masaana gaw kaaba gi danaan fexe leen ba Omar yëg ko saa yu ko nee Omar na ko rek yonent bi delluwaat jëlaat tëddaat cib lalam dellu sàngu bu ko fekkee muy nelaw du yàq dara ca nelaw ya ngir xam na ne ginnaaw Omar yëg na ko dara du yàq ca dara du jub ci pexem yéefari ni ko kóolute googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci ci Omar yow Mouhamadou Moustapha man Cheikh Ahmad Bamba mii la yàlla jaarale ci man kóolute googu laa am ci yow ba xam naa ni li may bari bari ay bañ ak li may bari bari loo xam ne lii man mii la waroon te ma war koo yeggale te bàyyi ko ak yow ni laa amee ci yow dalu xel ci sama ginnaaw ba may ma la wanee ginnaaw tëdd naa ni la ila ay xat xurubal ida fa nabih laha amiran su ma nam euh, sëñ Modou Moussa daal ni sëñ Fall daal di wax yaa xaa ifan yaxsha nawaiba dahri yi yow mi nga xam ne yaa ngi ragal jamono yàqaale la wala jamono suutaale la wala ayibi jamono gaar la luz digal naa leen lu wéeru bil xalifatil Moustapha ci xalifa bii fi nekk Serigne Touba muy Mouhamadou Moustapha te nekk ci dëkkam bii ci taa yi ci taa yi Serigne Fallou waxuma la li nga xam ne def na ko ci bëgg mbokk li ko tàmbalee ci magam jooju sax mu faar ak rakkam yëpp nga xam ne kenn ku ci nekk tudde na la doomi boppam bi mu yegsi ci ni mu bëggee Serigne ba yi muy xool Serigne mu di ko xool ñi mu bokkal Serigne Touba bi muy tudde di tudde di tudde ba yegsi ci Serigne Bassirou mel ni foofu dafay taxaw amul doom ju góor ba mu yàgg lool dafa jël ab jarbaatu lengeem ku ñu wax sëriñ maxtaar mareema kunta daldi koy indi ci sëriñ basiiru ni ko man kat damaa amoon yéene yi kenn ku ma bokkal sëriñ tubaa ku ne ma tudde la sam doom bi ma yegsee nag ci yow mel na ni gëj na maa gis loolu ñu wax doom damaa bëgg nga téye kii mu di tayle bis bu ma amee basiiru jot ko loolu yi yegg na ci xam nga ni loolu jooju yéene ak boobu xir ak loolu bokk na ci mujj saat Serigne Fallou ci digganteem ak ñi mu bokkal Serigne Touba ndax ku bëggul sa mbokk doo bëggub jaamur ku yërëmul sa mbokk doo yërëmub jaamur ku xettaliwul say mbokk doo xettalib jaamur kon yërmandeem ji ak yaatoom gi ak lewetam gi ak bëggam gi Serigne Touba ci bokki boppam yi la ko jëkk a tàmbalee mu jëm ci bépp taalibe euh, Serigne Fallou xam nga ni nekkam gi murid saadix loolu ñax jaay naa sama njuree jënde ko taalibe sëñ Fallou ko jëkk jëkk bind moom nit teg ci loxoom teg ci bëtam ndax bi mu jébbalu ci sëñ bi sëñ sëñ Tuubaa da ko woo woo Seex Masàmba woo sëñ Mourou Moussa ak ñeneen ñoo xam ne ñi ci ahlu bayt ci waa këram lañ di bokkam mun leen li ma yor jarbaat du ci maye doom du ci maye rakk du ci maye mag du ci maye li ma yor jaayantee ci maye ku jaayante ku ne ci nga ku jaayantewul bokkoo ci sëñ Fallou moom ñu ñu laaj ko yoonu jaayante ak yoonu jébbalu sëñ Tuubaa tegtal leen ko ba ñu ko bokkee jëf ñoom ñoom ñoom ba noppi sëñ Fàllu moom da ba muy jaayante da ko wutal seere ngir dafa bind ay bayit yoo xam ni ba nëgëni si ku fekkewul woon jataay boobu ak wax joojee boo gisee bayit yoo xam ni kii moom loolu ñuy wax ak mbiréel xeeb na ko digganteem ak sëñ Tuubaa doonu taalibe ndax dafa wax ni yaa ayuha sayqu nafisul murtaja yaa fatihan maa qablu kaana murtaja da atul bu nuwatiya bil irada lakum li koy osaadi xarqaada وبعد ما اشتريتموها مني هديتها لكم بخير مني نكو يوم نيغا خامني دانيو واخني ياي سما باي تا دوم بي ني امنا نياري جيكو يو خامني فاو دانكو وارا بو كو نيهي بو كو نكاري دانكو دوني سي سي واجورم نغيرو نغوريل دوم جي ني تام امنا لومو ام سي علالي بايام داما بڬ جاي لا سما نغوريل جنديكو ان ارادتو اك نامين سي يو دون سب طالب كو نامو سي يو كولاي لغييل كولا جاي ليپم ni ko nag njëg ga nga xam ne moom laa la koy jaayee bu ma ci jotaatee itam wa ba adama staraytumuha minni haddaytuha lakum defalaat naa la ko addi sëñ Tuubaa daal di koy laaj ko waaw loolu loo ci ko li koy unsta bi xarqaxaada man daal damaa bëgg fu ma ne jaleñ ñu xam ne maa ngii fu ma wanee gannaaw ñu xam ne jóge naa fa te kenn ku jëflanteeg man xam ne dootoo gis ku mel ni man loolu mooy xarqaxaada xar baax laa bëgg sëñ Tuubaa ni ko defal na mu la sëriñ terewul ni mu ubéree ni mu yaatoo ni mu larse dugal ñëpp ci boppam muy fujaar ak labraar ngir kenn ku nekk ak yàlla ji la bind ak lu tax mu bind la mu seet ko digganteem ak boroomam ba ëmbal la yërmande jamono yi mu ci nekkalee yàlla nekkal fi rasulullaay nekkal fi sëriñ Tuubaa terewul dafa boo faboon sunna teg ci kanamam di daan waññee di jàjjee di xuppe di bégle kenn ku yegg si ku ne na sab na sam xel toll sab xam-xam toll na dana la ca fekk wan la xatari adduna ak danger yi nga dëgmal ba ba ba nga ba nga ragal mu door laa dimbali nag moom ci ci doolee boppam ak baatinu boppam dafa mas a am ku ko jox loxo ni ko mbàkke yaar laa bëgg te mu jafe lool te nga mën ni ko am am laa bëgg te mu jafe lool jub laa bëgg te mu jafe lool mu ne ko xanaa da ngay def nii waay mel ni ku ku dara ba fab baaraam bi duggal ko ci gémmiñam bi xanaa da ngay def noonu waay mu ne ko waaw mbàkke mu ni ko ba ko boo ko baa da am boo ko baa da nga jub ni ko saru xam rasu kulu xat ci ati waay yonent bi ni li moo yées lépp ku ci nekk doo am dara lu baax door koo ñaanal it nag ca ñaan googee ca lay waa ca la waaje jim ni ko ba bàyyi loolee ku sëñ Fallu sere yomb ko lool ndax koo xam ni kii boo fekkoon ku dee sax boo jubloo mu dekki mu dekki boo fekkee ko bon boo jubloo mu baax mu daal di baax ca saa dana la xamal sa ayib ba nga xam ko mu dimbali la ca ndimbal loo xam ne xam nga ne ku la bàyyi woon ak sa bopp doo ci gaaw a jóge nii. moom ko ne bëgg te mu jafe lool am laa bëgg tamit defal loolu sëñ Fallu ko xanaa da ngay def ñi waay ñu ko waaw mbag mu ne ko ba ko waay sabul xam ndax su ko xatti ati waay yonent bi nee na loolu yi moo moo yées lépp ku la yées lépp ku koy def doo doo mel nen waay doo am na baax waaye ñu ko mbàkke ñaamam bokk mu ko kon nga ko waay yërmande jàngoo ndax faddahu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhisatil hasanati dalay wan sa ayib ba noppi nag dimbali la ca ba nga tàggoog moom waaye dafa ñëw fi moom ni ko mbàkke sama ndey dafa naqari deret lool ngir nga xam ne sëñ bi Euh, nekku fi woon rek ngir nu waay mel mu fekk la ca noonee dana la dimbali gannaaw bu ma la xamalee li yàlla bëgg ndax yàlla la fi nekkaloon ak sëñ Tuubaa waaye ci yërmande jooji da dalay dimbali nag wan la sa bopp ba nga xam yaay kan wan la xameel la sunna ak farata ba nga xam ni ko ba noppi dimbali la ndax ndimbal moom saa yoo dimbali ma rek ku xam ni nekkul ci yoon mbaa ko xam ni tële na kookee mooy ñaan ndimbal sëñ sëñ bi euh, waa ji ñëw ni ko sama ndey dafa naqari dara loolu ne maa ngi ñetti soxna maa ngi ak njaboot waaye sama ndey léeg-léeg day jékki ba mu neex ko mu dal ci sama kaw ci di ma tifaat ay saaga ak a dóor sama waa kër léeg-léeg sax mu jote ak samay soxna ba ba ñuy bëgg a dem seen te yow juboo yàlla ma bëgg nga ñaanal ma yàlla sama borom wullil ma soxna soo si lewetam ndax dañ fa lu na ni moom lu mu yàlla fekk ko kenn ku nekk luy sa soxla rek nga bëgg wuti ko ko ko wax waaye ba mu ko waxee sëñ bi dañ sëñ bi fekk mu soonu dañuy rëj di ju ko waaye nga ni lan mu waxaat la ma waxoon sëñ fal ni ko ndax sa ndey yegg na ci jooy guddi waay lu ko mbag loolu da yëggagu ci mu ne ko nekk ko ay te gis bu tey yeggee du goreel daa nga jooy guddee ka yeneen guddi te taxuloon mu ñëw fii ni ma ñaanal mu ñël waay goreel waay kooki xam nga ni mi ngi mi ngi yare dañ fàllu mu al murabbil muraqi la da daa yare ba noppi di dimbalee daana yare daana xamle ndax bindee fi ñoom seen jëm bopp inal insaana la zaluman jahula doomu aadama tooñkat la doomu aadama ku réere yàlla la ku fi neel yàlla faaw nga di leen wan yàlla ndax dañu koo réere di leen dimbali itam ca wan googee nga leen wan yàlla ba gis yàlla leen lool ndax ku ne xam na ni qad jaakum basairu min rabbikum faman faman faman absara falyasbi faman am yafa alayha wa ma ana alikum bi hadith lolo yonente ci salaay sama xam waye bindeef yi itam aw jubalin dafa am amin wo xamni wi te serigne bi sa yo yexé lam lay jëkk jëkk jëkk dimbalee moy do lu tàggaleeg sa xel sa yu ne alaykum fi kanamam dana la wan yàkkaliku go xamni gi wala mu am am am ci yow cofeel goo xam wala mu tooñ la tooñ woo xam ni da nga sa xel dina dellu si ndax ku ne xam ne ni ñu sëmmu fi kanam dooy borom Tuubaa mën naa tàggale mu teg sa borom ba bu la delloosiwul moom ci jëmmi boppam sax lu bari sam xel dana daal di tàggoog yow sëñ bi kii ci Colobane sooy bu si la mii mos naa sukki fi moom ñu ko Mbàkke la mu ñu ko ñu ko silla maanaam wax ko wax ko sant ko silla la Mbàkke waaye xam naa ko waaye bopp daj ji noppi féewu waaye bu di xonk cooy ñaxal waaye ñaxal xam nga ni si li xam nga ni mu daal di dellu siwaat daal di diggaat loolu moo tax loolu mooy li alquran wax ne fatahu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawsat asanati ndax xam nga même docteur bi sax même docteur sax boo boo ñëwee si moom ku ne xam ne docteur yi nga xam ni perfectionné nañ ci wàllu médecine loolu seen thème la pour ñuy dimbali malade bi nit bu woppee ca àll ba wala mu jekk ba ca àgg mu ni ko xamuñu lu ko dal bi la muy jëkk dalale xelam ñu ko fa yóbbu mooy bu gisee malade bi da koy daal di yëngal nii daal di xool muuñ daal di ree ne ça tenait rien wow ça bu ko defee seeni xel dellu moom ak lu mu xam-xam dayo bopp ji itam dana dana feeñal bëñam dana bég tuuti ngir dimbaliwaat dellu si xelum ñi nga xam dañoo tàggoog seen sago ci saa si